dajale nag tey mooy wax li nga xam ne moo xew ci commune de Golf Sud bi nga xam ne ñun en tant que des jeunes fi lañ nekk ci politique ñu nekk ci situation boo xam ne aujourd'hui nous avons notre mot à dire parce que li ñu gëm mooy si on veut vraiment aider le président de la république il faut oser dire les choses en face euh, ci loolu dañuy d'abord commencer par remercier le président de la République Macky parce que gis nañ ni ba pandémie bi commencé ba léegi am na ay mesures yu am solo yoo xam ni jël na ko à l'endroit de la population ñu ngi ko ci gërëm di ko ci féliciter euh, di remercier aussi son gouvernement di mastawu ñi nga xam ne dañu nekk tey ci situation bu xaw a ñu koy wax ci mënd bi ñu leen di masawu bu baax mais di encourager di féliciter le président de la république ci mesure yi nga xam ne jël na ko ba pare pour dimbali ñooñu nga xam ne tey ñu ngi ci situation yooyu euh, daje bi dafa am solo li tax mooy suñu parti APR ñun ñu nekk ay ndaw ñu war a dem ay élection locale yaakaar naa ni jeunesse en tant que fer de lance amul kan ku ko gën a placé pour wax la réalité du terrain te bu ñu waxee dëgg bu ñu waxee dëgg rek euh, gis nañ ni ki nga xam ne mooy le président Lat Diop amul candidat bu ko gën a présent ci biir commune lu ma ciy wax mooy tey si on va gagner les élections Ici, au niveau de la commune et dans le département, nous aurons besoin forcément de la personne de l'adjoint. li tax loolu je vais argumenter li tax loolu 2014 la dem élection locale ñu gagné ko boobu ba léegi mu nangu diggal nangu ànd ak njaboot président de la république bi fi nekk 2014 ba léegi élection yi mu jëloon deuxième ba léegi il est sur le téere kooku yaakaar naa ne kenn gënu goo xam terrain bu weesoo loolu représentativité dafa am solo ci wàllu politique représentativité mooy lan le leader doit être présent et à côté de la population beneen mbir bi parti dafa am structure te structures yi dañu nekk ay instances yoo xam ni ce sont des instances motrices ñoom ñooy li nga xam ne ñooy doxal parti bi mais kenn jiitiwu ko ci loolu kon nag bu ñu toogee ñun waa COJER waxtaan gis ni tey taxawaay bi nga xam ne am na ko à côté du maire Aliou Sall ñu rafetlu ko gis ni taxawaay bi nga xam ne am na ko au niveau de la base kenn du ko naatable parce que li tax ñu génn wax mooy bëgguñu ku tromper le président de la république il faut que ñu bàyyi cette politique politicienne nous demandons président de la république d'écouter ses militants ñu ngi wax président de la république mu déglu base bi ñu ngi wax président de la république mu déglu njabootam ñi nga xam ne ñu ngi fi di liggéey pour que moom en personne ñu gagné élection yi vivement euh, au soir du du du du mois de février ah du juin janvier pour moi euh, li ma ciy dolli nag bu ñu xoolee lépp. ki nga xam ne mooy le président la Diop non seulement il a le soutien du parti dans la commune de Golf Sud mais tey boo xoolee il même le soutien des autres partis à savoir le PDS réew mi les mouvements et associations yi nga xam ni ñu ngi ci biir commune bi taxaw ne ko yow la ñu choisir comme candidat te ñun nag il faut que l'on les les sensibilités de côté et qu'on ose dire les choses clairement. Aujourd'hui, si on veut aider le président de la République, Macky Sall, nous la responsabilité suñu wareef mooy ñu wax li fi nekk te li fi mooy amul kenn le candidat idéal aujourd'hui le candidat idéal pour la commune de Golf Sud c'est le président la Diop je vous